saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa décision ba waa Fass jël teg ko ci ndodal Papa Sow Fass décide finalement d'exclure Papa Sow de l'écurie écurie Fass mankoon nanu waxtaan nanu dàq nanu Papa démb ci àllarba ji moom Papa Sow ko yëgal li ni xamal ko ne ko Papa bu Fass moom dootoo ko dégg dàq nañ la écurie bi jëlal say bagage jëlal say kaaki demal sa yoon foo jëm yaa xam waaye Papa bu écurie Fass moom dootoo ko dégg journal ba ko mébét lépp a yaatoo écurie Fass dafa xaatimab règlement intérieur teg règlement intérieur boobee ca

règlement waa écurie ba ne ginnaaw Papa baare na règlement intérieur bi moom bokkatul Fass Papa ne pli le leader de l'écurie mënatu fee def mënatu fee dindi mënatu fee dogal lépp lu mënatee def boppam la engagé yoonu écurie ba nekku ca dàq nañu ko journal ba xam ne bi décision bi jógee ci waa Fass nag Papa Sow ca waxu ca pas de commentaire pour le moment loolee le journal ba xam ba mu jotee notification ba dafa ne pat pataaral di xaar dogalam danañ xam ndax Papa Sow day samp écurie bu bees wala day fekki Modou Lo ca Rock Énergie bu ñu fekki jee Baye Mandione ca Caaroy moom wax na la ko naroon a dal ca Banjul il y a un deal pour me faire perdre loolee la Baye Mandione xamle waa Gambie dañoo teg seen deal dabb-dabbal seeni pexe li ñu bëggoon mooy ma ñàkk ci kanamu xooyantaan waaye yàlla weer na leen xooyantaan dafa jàppoon bu ma sumeekoo may rawu pataas moom dafa foogoon ni doj mu ruux la ñàkk espoir bëggatul ca làmb ja dara bi arbitre Baye ba mu a demee waa médical ba xool baaraam ya ne ko fii we amu fi mu dellu siwaat ci arbitre bi ne ko gis nga fii amul benn we bu fi nekk ci médical ba laa jóge waaye nee nañ ma we amu fi mu ne ko mbokaa faaw nga dagg say we Baye Mandione ne ma déplacé dem ca presse ba won leen samay baaraam ku ci nekk ci ñoom ma tàllal sama loxo ne la ana yi bi ma dellu siwaatee maa ngi dégg xoyantaan naan arbitre bi bu nanguwul jox victoire bi boobee laa comprendre ñemewu te fédération gambienne bi ku ko gis xam ni njuuj njaaja leen ñor ba ma ñëwee ba ca bunt ba bay dugg la wax mooy mbooleem ku accompagné Baye Mandione da wut licence doog a dugg xam nga foofu la tappale commencé xam ngeen ne bu ma jëlee xooyantaan lenn laa ci jublu mooy duma ko duma yu metti daan ko ñëw jëlaat sama place ci arène Sénégal bi waaye ñépp xam ne xooyantaan du moroomam du kalaasam du maasam bu ñu jàllee ca diggante Ama Baldé ak ne Luc Nicolaï dafa bëgg a tëgg premier face à face bi le premier janvier loolee moo tax Ama Baldé mënagul a génn mënagul a dem fenn bu ñu jàllee sa diggante Balla ak Boy Niang ñoom ñaar ñëpp pare nan bu dee Boy Niang 2 la mu xamle mooy man pare naa même bu doon stade Amadou Barry bu Guédiawaye sax pare naa pour bëreeg Balla Gaye rax ca dooli moom Boy Niang 2 ne bu ma gisee promoteur bu soxla sunu combat du yàqoo ci man te bu ñu juboowee maay déplacé wu gannaaw sénégalais yi sama diggante ak Boy Niang la bëgg pare na noppi naa promoteur bu bëgg na ma seet si Boy Niang dene bu combat bi taxawee ñëpp xam ne maa ay ci mbër mu mag bi le bu taxawee ba ma jëflante ak Balla Gaye 2 ba noppi mbooleem kuy amateuru làmb da ma jox respect da nga xam ne maa ay ci mbër mu mag bu ñu jàllee ca diggante Libidor ak Serigne Ndiaye 2 bii ñu fas yéenee bëre dimanche bi ñu dëgmal Boy Kayre wax na ci xalaatam Serigne Ndiaye 2 mooy favori bu dee diggante Boy Yëmbal ak Xeeru xalaatam Boy Yëmbal moo gën a technique waaye Xeeru Ngor 2 moo dàq xeex ñoom ñaar bu ñu bëree Boy a ëpp sens waaye bu moytul samedi bii ñu dëgmal la combat ba yàggu mooy ba doon dox ca diggante Abou Ndiasse ak démb lañ doon jàkkaarloo ci stade Iba Mar Diop waaye combat ba neexul safur xorom safur suukar ñaari mbër ya benn yoon la laalante ñaarut Tafa dafa xàcc ca kaw jël sa suuf ne coppe tànk ba tànk ba diis Abou Ndiasse rëcc Tafa ne ko dootuma la jege dootuma la laal la des ca lamb ja yëpp da doon wër-wër loog moom ak a bàkkoo ko a fës ci ëtt yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah jox di